booleen leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën a ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo jasaaka rabbuka fii daarayni yaa xasanu xayran bi jaa min najlil xasanu sunu mbokk yu tedd yi ñuy déglu te dañuy seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu su ngeen jàkkaarloo ak ñun ci jamono jii ci kër gu sell gi di kër sëriñ Darou Assane Ndiaye jàkkaarloo ak daara ju am solo ji nga xame ni njabootu sëriñ Darou Assane njaay ñoo ko fi amal waaye jàkkaarloo ak mboolem njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye gépp seen xel dana war a dem sibisub bisub diine bisub lislaam bisub alquranu karim bisub jàmbaar ji nga xamee ni moo faban léppam jébbal ko si Ahmad Bamba xaadima rasul di kenn ci juróom yi jëkk a jaayante ak Serigne Touba xaadima rasul di bisub Serigne Darou Assane Ndiaye muy bis boo xamee ni at mu jot dañu koy wooteel Serigne Darou Assane Ndiaye waaye nag boole ci bisub mboolem njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye gépp ndax ku xam kër Serigne Darou Assane Ndiaye xam seeni doxin xam ni kër la goo xamee ni si lépp benn la ñu jébbal ko Serigne Darou Assane Ndiaye bis boobu nag ñu koy woote ci ndigalu Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kullu murit mi ñëpp di ñaanal fan wu gudd lool wu xànd ak wér yaram Serigne Ahmadou Moukhtar Mbacké xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha Serigne Cheikh Mbacké xalifa Serigne Mbacké Madina Serigne Abdourahmane Mbacké moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma Serigne Moustapha Mbacké waaye nag mooy am ci njiit ak ci kilifteefu Serigne Abdou Khadir Ndiaye xalifa Serigne Darou Assane Ndiaye mu ànd ko ak mbooleem njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye gépp mu war a doon aljuma ñaar fukki fan ci weeru sanvier janvier 2023 ci Touba Mbacké quartier Touba Darou Ndiaye ñu koy yëgal ñëpp bàyyi wu ñu kenn bàyyiwuñu wu ñu ñenn bàyyi fenn di xam le ne bis bi bisub alquran la bisub ñaan la loola tax tey ñu teew fii ci kër Serigne Darou Assane Ndiaye feggoo ak njaboot gi ñu fas yéenee yëkkati kàddu yu woote ak soññee danañ njëkk a jébal kàddu gi sëriñ Ibrahima Jëmb Ndiaye mu yëkkati kàddoom ci turu mboolem njabootu sëriñ Daaru Assane gépp bu ñu àggalee jébal kàddu gi sëriñ abdu Ndiaye mu yëkkati kàddoom ci turu Minanul Baaxil Xadiim di kuréel gi lëkkale sëtaati sëriñ Daaru Assane Ndiaye yëpp bu ñu àggalee jébal kàddu gi sëriñ Mbàkke Ndiaye mu yëkkati kàddoom ci turu diaspora bi ñëpp bu ñu àggalee jébbal kaddu gi sëriñ Xaadim Ndiaye imam mu wax ci turu jamaatu ahibai Cheikh Alhasan waxaale ñoo tam programme bis bi nan lay demee kon ñu ñëpp ñu maasee teelu déglu Serigne Ibrahima Jëmb mu yëkkati kàddoom ci turu mboolem njabootu Serigne Daaru Xasan Njaay gépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki jullit yi bokki taalibe yi fu man di ne Serigne Abdul Qadir mi ngi leen di nuyu xalifab Serigne Daaru Xasan di yiital ci nuyoo boobu Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi fi toog toogaayu Cheikhuna Ahmadul Xadim radiyallahu anhu di ko ñaanal moom sëñ Mouhamadul Muntaqa yàlla na fi yàgg te wér àggale ay naalam ak mébétam ci yoon wi ci diine ji ci bokk gi ci réew mi tenu nu ànd moom di jiital ba tey ci nuyoo bi sëñ Ahmadul Moxtaar mi fi toog toogaayu Cheikh Mouhamadul Moustapha moom itam di ko ñaanal mu yàgg ci suñ kanam nu yàgg ci gannaawam mu àggale ay mébétam ak i naalam ci ëttub Cheikh Mouhamadou Moustapha bii ànd koog mboolem ak njabootam ak taalibe kon gannaaw loolu sëñ Abdou Khadir gannaaw nuyoo bi mi ngi jëmale kàdduy cant ak i ci mboolem ku sëtoo ci sëñ Darou asan wala nga dib taalibeem wala nga dib soppe di leen sant di leen gërëm ci mboolem loo xam ni kër sëñ Daaru Asan mos nañ cee nekk te ñooñu ñëpp ànd ceeg ñoom ba loola yéwén gannaaw cant yi ak ngërëm yi di leen ñaanale suñu borom mi am fay yàlla na fay ñëpp yiwu adduna ak aaxira gannaaw loolu kon bis boobu nga xam ni ñun ñëpp xam nañ ko daa ko ànd di ko taxawe muy bisub sëñ Daaru Xasan ak njabootam ak taalibe yi ak jullit ñëpp sax lañ ci fasaale ñu baaxoo di ko amal at mu jot le 20 janvier kon ren jii di 2000 atum 2023 kon ba tey nañ ko daa amale rek lañ koy amale ci ñaar fukki fan ci weeru janvier sëriñ bi di ko soññewaat na mu ko daa soññee di ko fàttali di ko woote nam ko daa woote di sàkku rek ñu màggal ko ci lu dëppoog sunna ni ko sëñ bi santaane ci bisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tasimuhu bi sunnati kon sëñ Abdou Khadir nee na mi ngi sàkku képp kuy ñëw ci màggal gi nga bàyyiwaale xel loolu ba diirub li nga fay ne say wax say jëf say jëflante say melokaan lépp na dëppoog sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko sëriñ bi jàngalee kon nag li des ci leeral gi am na waa bi yor liggéey bi danañ ñëw leeral ko kon sëriñ bi daal mi ngi koy soññe di ko fàttali di sant ñëpp di ñaan nag suñu borom taala ko taala nu dugg ci ak jàmm te mu jàppandilal nu ko te defal nu ci ndam lu kawe lam nu ci daa defal te gërëm ko te may nu nu yàgg ko fekke te ànd ko sun ki defee yi jërë ngeen noo ngi sof suñu nuyoo ak suñu ziyaare ci kaddu sëñ ma jëmm yooyu tam matal sëkk yëkkati ay kàddu surtout mel na Baye Khadim di sëtaat sëñ Daasan yi ak mbooleem luy sët sëñ Daasan ci ndigal sëñ Moustapha Ndiaye moom sëñ Cheikh Oumou xam moo ko jiite ñuy wax ci tout suñuy kilifa sëñ Cheikh Raada sëñ Baara sëñ Dame Xëy sëñ Mbakke Mërëmu sëñ Fallou Abdou Doot ak mbooleem ñiñ bokkal njaboot sëñ Daasan gépp si sëtaat yi te ñooñu jiitee liggéey bi Alaaji Mbay Waqe ak Sëriñ Mbay Laa Jóob ci woote bi nga xam ne ñoo koy woote ci bis bu màgg bii ñu dëgmal di màggal Sëriñ Daaru Asan Njaay te saa bu ne suba la bis bi mu am bis boo xam ne sët yi dañ koy def ngir gàttandu bis boobu si dayale mbokk yi ak xarit yi ak mboolem njaboot gi si waxtaane lépp lu aju ci yoon wi rawatina ndax lu war a ëpp fukki temal juróom yoo xam ne def nañ ko te lépp njëriñay l'islam bépp la ren jii nag ñu am thème bu am solo boo xam ne ko bëgg a waxtaane muy defaru Serigne Touba ci jëmm jii di Serigne Darou ñu bëgg a delloo Serigne Darou Assane nag wane ko jàngale ko xam ne lépp day defar gu Serigne Touba aw ñoñam te jàpp nañ fi àdduna toll laaj na ñuy delloo si waat man ñu mel nii di leen waxtaane moo tax thème boobu ñu tànn kenn ci biir njaboot gi mu wax ko waxtaane muy Serigne Mouhamadou Ndiaye asan moom sëñ Moustapha moom sëñ Mandiassane ñu siy woo nag mboolem ñu bokk sëñ si sët yi tàmbali Cheikh Mouhamadou Moustapha ba si Cheikh Mourtada soxna Faj ba soxna May tey jaay woote boobu si njaboot sëñ Dalasan nga xam ni daa bokk ci ñoom di sëñ Xabo moom sëñ Abdou Aziz sëñ Cheikhul Khadim moom sëñ Sidi Abdoulaat sëñ Mouhamed moom sëñ Mbacke Soxna Lo sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadim ak mboolem njabootu sëñ Abdou Mbaw ak Mbay Mbacke Jaaxal ak mboolem ñu bokkal sëñ Touba tey sët sëñ Daaru Asan Njaay waaye mbooleem njabootu sëñ da Asan Njaay moom bàyyiwuñ kenn di wooy mbooleem seex si nga xam ne ñoom seeni maam ak sëñ da Asan ñoo bokkoon nekk sëñ bay bàyyiwuñ kenn di jaare woote boobu si njabootu si Cheikh Ibrahima Fall parce que ku ne xam ni ñu koy wootee fii noonu la ko njaboot koy sañoon a ndax ñoo bokk menn maam di jaar si seenu tu suñu am di Modou Mbène Fall di woo mbooleem koo xam ne ab seex nga boo xam ne sëñ Tuubaa moo defal sa maam ngay ab sët baa ngay ab sëtaat ñoo lay woo ci bis bii waaye di woo mboolem seex si nga xam ne bokk ëttub Daaru Xuddus bii di ko jaay sëñ Mbàkke Gey Ngàcci ak mboolem seex yi ñu bokkal seex buntu kër seex Mamadou Moussa yëpp kon noo ngi woo ñëpp di seenu ñëpp programme bi bëgg na mu tàmbali cinq heures bëgg ñëpp teel a ñëw ngi ñu bëgg waxtaane ndax xam nañu bis bu mag bi mooy màggal gi te bëgg nañ lépp jeex balaa guddi ñu mën a waajal bisu màggal gi kon ñu taxal foofu kàddu gi wasalaam aousu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barakat seexul xadim maa ngi sox sama nuyoo ci nuyoo yi fi jàll yëpp di yëkkati kàddu ci turi sunu kilifa muy ñi féete ci diaspora bi jiital ci alaaji mbay roqeya ak bay taala jóob ak alaaji abdu njaay buñ leen tuddee rek dana mën a yóbbaale jëwlin yëpp di soññ sunu bopp di leen soññ ci liggéey bi nga xam ne moom la bokk muy liggéey sëñ daaru asan njaay di fàttali màggal gi nga xam ne baaxoo nañ ko defe at mu nekk ren jii mu dëppook ajjuma le 20 janvier fii ci Touba Darou Ndiaye gannaaw ban ci amee ndigal ñuy soññi nag bépp jëwrin fu waay man di nekk ci bitim réew diggante itali France Espagne Portugal Amérique Angleterre ak mboolem dëkk yépp Afrique bàyyiwun kenn di soññi jëwriñ yi nag ci liggéey bi nga xam ne moom lañ séq te muy taxawaay boo xam ne ña ngi ko taxaw ci bitim réew ngir fas yéene di waajal bisub sëñ Daaru Asan Njaay bii kon jëwriñ joo xamante ne si yaa ngi ñuy dégg rek ñoo ngi la koy fàttaliwaat di la soññ bu baax tamit nga gën a feddiliwaat sab laxasaay ci liggéey bii xam ne amuñu kët lu bisub sëñ Daaru Njaay bii kon nag ñoo ngi soññu jëwriñ yëpp boo jàllee tamit bépp jullit bu nekk bitim réew aju ci njabootu sëñ Daaru Asan Njaay ñoo ngi la koy fàttali bu fekkente ne fekk nana fi nga fa yéenee ñëw ñu ànd dundal bis bi bu la fekkul yi tamit nga xam ne fépp fu waay nekk rek ñoo ngi koy soññi soññ sa njaboot ñoo ngi sant ñëpp di leen fàttaliwaat bis bi rek ñu joppaat ci bu baax a baax ci liggéey bi ñu fàttaliwaat bis bi muy ajjuma le 20 janvier fii ci Touba Darou Ndiaye kon lool rek moo doon kàddu yi ñu soññewaat jëwriñ yëpp daal ñu soññewaat jàppaat ci liggéey bi xam ne kat defe naa ne doy na sëkk rek. ci njaboot gi ñim nekk ci bitim réew ci di ko taxawu ci yeneen bis kon bu buñ amee sunu bis yaakaar naa duma mat wax kon bàyyiwun kenn ngeen jéggal ñu wasalaam asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi sos suñu nuyoo ci gaa yu baax yi fi jaar yëpp ci bis bu màgg bi ñu dëgmal bisub sëñ Daaru Xasan di ci woo ñëpp te di ko fàttali ñëpp rek di bàyyiloo xel mboolem koo xam ne yaa ngi dégg woote bi programme bi nga xam ne moom la ñu waajale màggalu sëñ Daaru Xasan te jamaatu Ahibaay Cheikh Xasan di ko taxawee ñu nekk ci biir réew mi ak bitim réew kon ñu ngi ci ñu ngi koy fàttali ñëpp te di leen ci woo di ci woo mboolem daayira yi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi te ànd ak ñoom liggéey sëñ Tuubaa bi fii ci biir dëkk bi lu mel ne Hizbut Tarqiyyah sëñ Yuusu Jóob ak mboolem Hizbut bi féete Daaru Xuddoos ñoom ñëpp ñu ngi leen ci woo ci bis boobu di ci woo suñ mbokki daayira yi lu mel ne Wilaya ak ñi nga xam ne ñooy ahibayil xadim ak mboolem daayira yi nga xam ñi bi ñu ngi ci biir dëkk bi di yëngu di jiwoo suñ mbokk yi nga xam ne ñooy waatu waa ca kanam ak mboolem njaboot gi aju ci kër sëñ Daaru Xasan di woo mboolem juróom-ñaari njare yi nga xam ne ñoo aju ci njare yëpp di mam dem ma njare kon ñi yow ñëpp bayiwun kenn bis bi nag day doon bis bu màgg mu bis suñ Daaru Xasan ñu ngi koy waajalee ci anam yii li ci njëkk mooy alxuraanul karim ak xasida ñu ngi soññ képp koo xam ne aju nga ci daayira yi ci biir réew ak bitim réew lépp lu waaye man ci alxuraan ak xasida ak azkar ak salawaat nga def ko def ko addee sëñ daaru xasan ak mboolem njaboot gi yëpp la ci desaat mooy programme bi li ñuy waajalee bis boobu nag la ci njëkk mooy ziara général bi ñu amal la 7 janvier incha allah gaaw ci kanamu sëñ Abdou Khader ngir ziare ko jébbal ko liggéey bi waaye mu ñaanal ñu ñu mën a waaj jëm ci li nga xam ne mooy màggul sëñ daaru xasan gi kon ziara boobu mooy li njëkk ci programme bi la ca toppaat ci programme waajal màggal gi mooy le 10 janvier incha allah di tomb ak talaata ci li ñu bëgg amal bis boo xam ne dañ koy jagleel kenn ci cheikh yi àndoon sëñ Daaru Xasan muy sëñ Ibra Ngóone ñu koy amale ca Touba Daaru Ndiaye bundu kër Abdou Ndiaye wilaay mbeddum ani sekk mi rek foofu lañ koy amalee loolu liñ ci jublu mooy lan mooy cheikh yi àndoon sëñ Daaru Xasan wane waat leen waajal màggal gi ci liggéey boo xam ne liggéey na ko sëñ Daaru Xasan mooy liggéey boo xam ne sottal nañ ko ci kër sëñ Daaru Xasan ba tax ndam yi ak xéewal yi yëpp ñu wër bi di ko sant sëñ Daaru Asan sunu jàmbaar ja kon seex yooyu bis yooyu ñuy amal loolu mooy sabab bi da ca toppaat it mooy bisu xasida mooy guddi ajjuma goo xam ne dañ koy amal ca Touba Daaru Ndiaye fa ñu amalee màggal ga ca mbedd mu mag ma ca buñu ko sëñ Abdou Xaadir ngir lan dundal fa alxuraan ak xasida ak dikar ngir waajale ko bisub sëñ Daaru Asan bi loolu ñu ngi koy fàttali ñëpp muy guddi ajjuma goo xam ne dañ koy defal suñu jàmbaar ji sëñ Daaru Asan dolli ko ay ñaan suñ borom yokk ko ay xéewal ak mboolem njaboot gi jiitu ñëpp ba ca topp mooy le 14 janvier di tombeek gaaw mooy bis bi ñu amal it kër sëñ Massamba Kane ca Touba Kër Wele ci marché Maam Jaara bi kon sëñ Massamba Kane yi bokk na ci cheikh yi xam ne ren jii jàpp na ab bis ngir amale ko ci buntu këram incha allah ba ca topp ci programme bi mooy set setal bi ñu amal ci Touba Darou Ndiaye ak li ko wër lépp ngir waajale ko màggal gi ndax képp koo xam ne da ngaa woo ay nit di leen dalal ay gan fa nga leen di dalal war naa mucc ayib moo tax ñu jàpp bis set setal la 17 janvier di ko bàyyiloo xel ñëpp. di ci woo nag mboolem ñi ngi ko daa àndal ñëpp rek mooy mbooloo yi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu set setal te ñu aju ci biir Touba ñëpp ñu ngi leen woo ngir ànd ko ak ñoom incha allah rabbi la ca toppaat nag mooy le 19 mooy bu nees wala màggal gi amal ci programme bu am solo mooy ci li ñu fës ne def nag consultation diabétique bi ak li nga xam ne mooy mayam mayam deret ngir waajale ko màggalu sëñ Daaru Asan gi ci la conférence bi di amee incha allah bi sët sëdaal sëñ Daaru Asan di defal di def te jubluñ ci dara lu dul waajale ko màggal gi la ca topp muy la vingt nag mooy bis bu mag bi njàng alxuraan ca baas bu mag ba ñu ngi ci woo daare alxuraan yëpp ak mboolem sëñ daare yi rabita yi nekk ci biir Touba ngir ñëw ànd ak ñoom liggéey bi ci wàllu njàng alxuraan ba ak xaside ma ak durus ak mboolem kuréel xaside yi nekk fii ci biir dëkk bi te ay kuréel yi mag isbu tarxi ak mboolem ña ci aju ñëpp rek ñu ngi leen ci woo di leen ko fàttali muy njàngam alxuraan ak xasida ak di ko durus ak a yëkkati ba tisbaar ñu mën a xéwalu mën a dugg si ci base bi mën a def cérémonie bi incha allah bu ko defee waxtaan way ma nga jëm ca xormay tuba loolu mooy tom bi ñu bëgg fa waxtaane ci jouru màggalu sëñ Daaru Asan gi koo koy def nag mooy ci Seexuna bu sa cumbaleen mooy def temb incha allah mu jëm ci xormay Touba ñu ngi koy bàyyi loo xel ñëpp buñ ca jógee sëriñ bi yëkk yëkkati ay kàddoom sant gërëm ñaanal ñu ñu mën a yeewee ko ba beneen incha allah rabbi lii daal mooy programme bi nga xam ne fédération jamaatu ahibay Cheikh Lassane tënk na ko ci njiital sëñ maam daam ak sëñ góor a Njaay parcelle ñoom ñi nga xam ñoo yor liggéey ak ñin ko àndal ñëpp lii mooy programme bi ñu tënk ngir waajal ko màggal sëñ Darou Hassane di ñaan ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm te ñu fekk lépp te taal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi kon mbokki julit yi mbokki taalibe yi bis baa ngi noonu di bisub alquran di bisub umma islamiya di bisub Sénégal gépp ndax ku ne xam na ni Serigne Darou Hassane Ndiaye mooy mbokkum Sénégal waaye di bisu mboolem njaboot nga xamee ni si ñoo nekk bitim réew ndax ku ne gis na taxawaay bu ràññeeku bi nga xamee ne njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye moom la ñuy liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasul sa bitim réew kon bis boobooteem seenu bis la Serigne bi nag nee na ma ngi koy yëgal ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn ñuy fàttali rek ni le 7 janvier 2023 di bis bi nga xamante si la ñuy amal ziar bi bis boobu mooy bisu versement ñeel daayira yëpp. kon na ko daayira yëpp bàyyi xel kuy ñëw nga waajal ko bu baax a baax sëriñ bi nag nee na bu ko mënan kenn ku nekk dana yónnee ndaw ci yow wala mu yónnee bataaxal ci yow kaddu yi nag képp ko dégg jàppee ko muy ndaw wala bataaxal bi nga xamee ni si moom la yónnee ci yow wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu fala tasal fii tuxa wa rusdi mujtahidan kay laa yulaqiyakal hisyaanu wal fitanu boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo